ngeen mën a gisanteeg moom tey jii di vendredi vingt cinq août ñu xëy dem service réanimation boobu fekk fa Ousmane Sonko tey nag moom gis nañ ko waaye bu nu sañoon de bu nu xamoon ni noonu lañ koy fekkee ñu def nañ ñu defoon àllarba ndax Ousmane Sonko bee ñu gis Ousmane Sonko ñun xàmmeewuñ ko waaye moom it xàmmeewuñu Ousmane Sonko bu sonn Ousmane Sonko bi nga xam ne waa ju jàmbaare jooju nga xam ne bëggul ku ko ku ko yërëm ñu fekk ko mu nekk ci beneen état boo xam ne xàmmeewul dara ba yegg na ci ñun ñii ci sunu bopp mënuñu ko woon a jox sax yóbbanteem bi nga xam ne sëriñam bu baax bi moom la ko jox bi ñu ñëwee ñu xamal ñu ni mënul dara mu nga tëdd ñu door a wëlbatiku daal di ñëw bi ñu ñëwee nag suñu xol neexul ga te na ngeen ñu jéggal ci liñ leen guddee woo waaye loolu ñu gis tey ci suba mënuñu ko woon a tëddaale dañu am obligation informer l'opinion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 te loolu